Mermoz Ouest Foire Parcelles Assainies Cité Impôts et Domaines Cambérène ak Thiaroye Azur benn ci Dakar Plateau Médina Fann Hock Liberté 5 Yoff Grand Médine Jankémaha Diamniadio Guédiawaye Petit Mbao Sicap Mbao Kër Mbay Fall Sangalkam Yëmbal E benn barak ci région yi am nañ ci juróom fukk ak juróom benn yu tëddee ni ñaar ñaar fukk ci Saint ñaar fukki ci Saint-Louis fukki ci Thiès ñett ci Bambey Kédougou ak Louga ñaar ci Kaolack Kolda ak tàmba benn ci jànq ci Jànqemaxa Diofior Fatick Matam Mbour Richard Toll Sakal Thiadiaye Mbacké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 dalee ko ci kaw bu njëkk ba senegal wàññi na fanweeri junni ak juróom-benn ak juróom ak ñaar fukk xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak ñaar ak ñaar téeméer ak fanweer ak ñett wér nañ ci juróom-ñeent téeméer ak juróom fukk ak juróom ñoo ñàkk seen bakkan mu des ñett junni ak juróomi téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar si lalu hôpital yi ak malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère la santé et l'action sociale mu ngi ñaanal ñooñu génn àdduna yàlla xare leen jan di ñaanal ñooñu des hôpital ak ñi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère la santé et l'action sociale mu ngi leen xamal tamit bi campagne vaccination bi commencé ba léegi téeméeri junni ak juróom-ñaar ak ñett téeméer ak ñeent fukk ak juróom benn nit jot nañu ñàkku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 sutante nit ñi nga xam ne aussi jot nañu ñàkku ñu leen di xamal ne nañ wéy di dig di wéy di ànd ak digle yi ñu di sàmmonte ak digle yi ñu joxe bés bu nekk di denc seeni carte de vaccination te bañ a fàtte rendez-vous bi ñu leen jagleel pour toll tollanti dose de vaccination ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam